bismillahi ma tàmbale borom daar di way ki jaara way di basiiro mbaake balla ay sayaanu moom bay basiiru doo seen morom soxna faatu jóob am nga ndam borom daaru am nga ndam baayu moomina ak seexuna bay basiru doo seen morom bay basiru Mbàkke yaa nu moom doy nga noo bay Bassirou Mbàkke kenn nga bay Bassirou doo seen moroom bay Basiru doo seen morom bay Basiru danga baax te fonk njaboot ge gëm nañu ne buur bi Yàlla dina la fay sa xol gëm nañu ne buur bi Yàlla dina la fay sa xol bay Basiru ñu ne de buur bi Yàlla dina la fay sa xol gëm nañu ne buur bi Yàlla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 ñaanal ki fi nekkal Serigne Touba Serigne Mountakha sun borom yàggal ko fi lool te wéral ko di ko ñaanal it di ko ñaanal bu baax sunu bunt sunu yaakaar ci Serigne Touba di Serigne Abbas Mbacke moom itam suñu borom yàggal ko lool te wéral ko naka noon it di ko ñaanale noonu Serigne Bassirou mi nga xam ni mooy doomi borom Daaru Moxti naka noon it di nuyu kilifa yëpp. di leen sant di leen gërëm di ko ñaare noonu it sëriñ maam Thierno mi nga xam ni mooy xalifab sëriñ Zubayru noonu it lañuy nuyoo jullit ñëpp ci àdduna bi di sant ñëpp di gërëm ñëpp rawatina nag waa saadatu daari ni yi nga xam ni ñoom la ñu sunu borom booleel ñu ànd liggéey bii nga xam ni moom la ñuy liggéeyal sëriñ Tuubaa Cheikh Ahmadou Bamba Xaadim Rasoul di ko liggéeyal maam Thierno Ibra Faati borom daaru moxti di ci woo sant di gërëm sant datu daare ni i ci Sénégal yëpp bàyyiwuma kenn di ko tàmbalee ci waa Thiès di ci tegit soppe yi nga xam ni ñoo ànd ak ñun liggéey Serigne Touba yi bi di soppe Serigne Bassirou ak bustaanul aarifiina su ma tuddee ñooñu rek ci tënk day mel ni tudd nañu mbooloom yëpp di leen sant bu baax te di leen gërëm di sant jullit ñëpp tamit liggéey bii di ci woo jullit ñëpp di tàmbalee ci fii nga xam ne fi la ñu féete muy Daaru Salaam teg ci Thiès doo kee àdduna bi yëpp wala Sénégal gi yëpp ñu ngi leen di woo ci sunu bis bi nga xam ne moom la ñuy sant Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul ndax li ñuy wax saa ne amuñu lu dul bis bi amuñu lu dul Serigne Touba moom képpal kenn la ñu am benn bis la am mooy bis bi mooy Serigne bi kon ñoo ngi woo ñëpp képp koo xam ne sa mbégte sunu mbégte la nga ñëw ànd ak ñun sant Cheikh Ahmadou Bamba gii nuy def loolu nag loo xam ne Euh, lu yéeme la lu kawe la waaye xat xataay bi dana tax du neex a leeral ndax képp ko dul sant nit doo sant yàlla sunu borom waaye nag dugg ci biiram day xaw a xat ak temps bi ni muy demee di wax ni maa ngi nuyu kilifa yi nga xam ne ñoo nekk ci dëkk bi yëpp tàmbalee ci gouverneur ba ci suuf bàyyuma kenn di leen wax tamit ne nañu bàyyi xel bis bi nañu jàpp ci bis bi nañu bàyyi xel xale yi nga xam ne ñoo dajaloo ànd ak seen doole di liggéeyal Serigne Touba ci bis bi ndax euh, ay ndaw lañu te jublu nañu ci yoon wu baax kon ñooñu aaja nañu jàppale leen aaja nañu doole leen. waxee su ko nag ngir sàkku ndimbal wala dara ndax euh, sunu lépp ku tedd ki defar na ko ba pare saa nuy woote ci Serigne Touba rek fekk na Serigne tubaa defar na li mu war a defar ba pare waaye nag dees leen koy yëgal ñoom itam ndax euh, comme ñoo bokk nekk te lu ñu nekk ñu nekk ci ñoom itam bëgg nañu lépp lu ñu nekk ñoom itam ñu bàyyi loolu xel àndandoo ko ñun ba mu jeex tàkk kon loolu lañ leen di wax ñoom itam di ci woo képp rek bàyyi ma kenn di ko wax Serigne Medoune Seye borom tawfeex di sunu ndijaay di sunu xarit di sunu lépp moom itam lépp lu mu am def na ko ci bis bi jàpp na ci jàpp na ci lépp lu mu am moom itam jël léppam jébbal ko Serigne Touba ñoo ngi koy woo di ko wax ne ko moom itam bisam la ak rakkam soxna Anta Sey mi nga xam ne moom la ñu ko tuddee ak yaayam soxna Adja Ramatulaay Soog di ci woo àdduna bi yëpp nag bàyyi mu benn jëwriñu Sahadatou Darayni fu faay nekk rek maa ngi lay woo di wax ni bis bi bisub Serigne Touba la bisub maam Thierno Ibrahima Faty la la Cheikh Abdoul Ahad waxoon nag moom lañ ciy waxaat bis la boo xam ne ku ci feeñ doo ci nëbbatu mukk ndax bii mooy treizième douzième édition ñu di ko def fukki at ak ñaar kon loolu du lu ndaw du loo xamante nii lu bees la kon yàgg na loola nag sëriñ bi def na képp ko ci feeñ dootoo ci nëbb ba ilaa yoomi diini kon maa ngi ñaan jullit ñëpp nañ ci jéem a feeñ murit yëpp nañ ci jéem a feeñ nañ ci def lu ñu man ndax liggéeyub sëriñ Tuubaa la bari ko ci kaw mbartan laal mu dem laalut mu dem kon maa ngi nuy jullit ñëpp wasalaamaaleykum wa rahmatullah kon ñu jox gi sëy sëy sëñ Mor Niang président daayira yi auzu billahi mina seytaani rajim bismillahi rahmaani rahim wa sallallahu ala sayyidina wa lana muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama mbokki jullit yi mbokki taalibe yi ginnaaw ba ñu santee yàlla julli ci yonente bi di sant suñ yaakaar tey ak ëllëg sëriñ Tuubaa Séex Ahmadu Bamba Xaadimu Rasuul di ñaanal sëriñ Muntaxa Mbàkke ibnu sëriñ Basiru di ko ñaanal yàlla yàggal ko fi lool te mu ànd ak ak wér di ñaanal sëriñ Abbas Mbàkke xalifa Daaru Muxti di jël ziar bi ak nuyoo bi di ko teg ci kilifa sëriñ Basiru Mbàkke muy sëriñ Maam Cerno ibnu Serigne Soubayrou di ñaanal Serigne Bassirou mi nga xamante si nii moo waral jataay bi yàlla yàggal ko fi lool te wéral ay cëram ba lim yéenee liggéeyal maamam Serigne Touba Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul yàlla defal ko ci lu kawe njortam ñi ngi jëmati ci bis boo xamante si nii moom lañu yàgg taxawal at mu nekk mooy sant suñu yaakaari tey ak ëllëg Serigne Touba Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul bis bi kañ la samedi ñu ngi ciy woo waa Daaru gépp di ci woo waa R100 di ci woo waa Cité Senghor di ci woo waa Diamaguène di ci woo waa Cité Lamine di ci woo waa Thiès gépp képp koo xamante si dégg nga annonce bi rek mooy sa carte invitation di ñaanal Serigne Bassirou mi nga xamante si mooy borom baax baax moom defe naa Serigne Bassirou rek moo ko am mom rek nga mas a dégg mu woote kaay leen baax kaay leen baax nag defe naa ne képp ku ko woote ku ko dégg rek war ngaa wusi waaw ndax kaaren baax moom képp ku ko wuj rek ku ko wuj rek mooy ku bëgg a kon ñu ngi koy ñaanal yàlla yàggal ko fi lool kon rendez-vous baa ngi noonu samedi le 10 bu ko kenn tardé asalaamaaleykum wa rahmatullah taala wa barakaatu asalaamaaleykum sama bokki julit yi sama moroomi taalibe yi li ma leen di wax toujours moom laay waxati maa ngi leen di woo ci suñu bis bi bisu sëñ basiru mbàkke borom kaay leen baax maa ngi leen di woo cant gi ñuy def fii ci Daaru Salaam ci burwaal bi ci fil gi di woo góor di woo jigéen di woo mag di woo ndaw di ci di woo sama moroom yi jigéen yi di woo sama àndandoo yi bëgg ak ja maam jaara bu sa yi maa ngi leen di woo maa ngi woo mbo daayira yëpp bépp kuy daayira Seex Basiru Mbàkke maa ngi lay woo nga ñëw wuy siñu ñëw yéen jigéen ñi jóg leen ngeen génn jàppale ñu li ma leen di wax toujours jàppale leen ñu jàppale leen da ngeen ñu daan jàppale ni ngeen ñu daan taxawale jàppale leen ci gan yi jàppale leen ci seen i kër génn leen seen i kër abal ñu ñu jox ko gan yi gan ñi ñu ñu teeru leen teral leen ni leen daa teeraw di leen terale loolu laay ñaan moom ngeen ma daan defal noonu laa ko bëggee noonu laa bëgg te ngeen defalati ma ko ni Cheikh Bassirou Mbacké li ma leen di wax nee naa leen ku ko defal da nga koo leb fay waaye lebaloo ko moom moo fi def lu fi kenn defut moo ñu defal fii ci Daar Salaam lu kenn defut ñu di ko ci war a sant nag bu baax a baax ni muy sant sëñ Tuubaa ñu sante ko ko ni moom itam noonu di sant sama bokki jullit yi maa ngi leen di woo yéen waa koñ bi yëpp maa ngi woo Fatim Kan maa ngi woo maam Awa Guèye maa ngi woo moom daal boobu ma kenn daal yéen ñëpp boo ko lim da ngay juum maire Lawbe Diop maa ngi lay sant di la gërëm te xam ne gis naa ne ma taxawee ci kër gi ndax boo ma fi yaatalal woon du ma fi xaj yaa ma fi yaatal ba ma mën fee xaj mën a wax ak sëñ bi di mën a def ak sëñ bi te contrôlé woo ma yàlla na nga fi yàgg lool te wér maa ngi leen di woo yéen ñëpp sama gone yi ànd ak man ci daayira bi tout tànk yi maa ngi leen di ñaan ngeen dooni mag ndax gis nañ ni ngeen taxawoo daayira bi bus bu ne fu daayira bi yegg yéen a ko fa yeggale bi ñu doog a commencé tuuti la ñu wan ñuy dem ba ak tey ñu am ay ñetti daayira fii ci biir kees bàyyiwuma benn daayira dimanche yi maa ngi leen di woo bu dimanche maa ngi leen di woo di leen sant leen gërëm ngeen wuy si ngeen ñëw taxawuñu jàppale nu ñu jàppalee woon gone yu jigéen yi daba daba jéey euh, daba jaxate yéen ñëpp bu ma limee damay juum buri ñoom ak yéen ñëpp maa ngi leen di woo alsaan yéen ñëpp ak seeni morom ku ngeen génn na nga leen woo ndaa bi maa ngi lay woo ak sa moromi jaaykati dékk na ngeen génn yéen ñëpp ngeen ñëw bu kenn des jërë ngeen jëf. barkeb sëñ Soubéry Mbacke may nuyu mbooloo mi fi teew yëpp. di leen sant di leen gërëm kontaan lool ci seen teewaay. gis ni ngeen taxawoo sëñ Bas. may ñaan nag sëñ Bas bësam bi yàlla na sedd guy te réussir. yàlla jàpp ci lépp. yeewal yëg lépp. di sant baay faalam yi ak yaay faalam yi xale yu am jom xale yu bëgg sëñ Bas xale yi ko nangul lépp lu ngeen sémb rek yal na ko yàlla sottal. ma ci woo mbokk yëpp mbokki kër ndey ak mbokki kër baay di woo waa Touba waa Daaru Musti waa Sàkkal waa Ndoyeen waa Barga Thiès gépp maa ngi leen di woo Kaolack ak Dakar